xew ci taatu géej gi day miti na lool tribune yéene kaay ne géeju Malika ba day waaw lu tolloo juróomi doomu aadama ñoo fa dee inna lillahi wa inna ilayhi dama ne la am na ci ñetti yoo xam ne day mujj na ñoo xam ñan la yeneen ñeent yi day yóbbu nañ leen libération yéene kaay ne dama ne la place su Malika googe waaw lu tolloo fukki ci doomu aadama kon ñoom ñoo lap daa wax ni ki démb allahu akbar juróomi day faatu nañu waaye mujj nañ leen a gis kenn ki Mamadou Ba lay wuyoo onze ans Mamadou Thiam douze ans Abdou Sow neuf ans Alpha Sow dix ans dama ne la xale yi dey ba ñoo añee ca kër Sadio Thiam ca Mboro Gale waaw lañ demoon di sangu ji de mujj lapp allahu akbar yéeni kaa gi ne demoon ni gis nga géegoo ke dañ koy tere laa la wax daña gën a bëri nag ña faatu ñëpp ay tuut tànk lañ ay xale lañu bos boobu li ne week-end bi la waaw doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne ca banlieue bale mbir mi ëpp na lu ci tollu fukk ci ay doomu aadama ñoo la ta Malika juróom ñeent ñoo la laa wax juróom-ñetti yaa gis nañ leen professeur Pape Demba ci yéene kaay gi nee gis nga ñàkkub yar xamadi indiscipline gi nga xam ne kon moom la ñu nimi ko day mbir mi léegi daa tasaaroo ci ndaw ñi laa wax généralisé professeur yamu ca parce que si Malick nee gis nga lu jëm ci wàllum culture politique ak culture démocratique néew na doole léegi ci réew mi laa la wax wàllum bëgg sa réew gi lée kooku moom dañ koo yemale lu jëm ci wàllum république bi lée dañu commissariat ca police ba waaw Seydi Gassama nee na waa police bi mënoo leen a yey nit ñi mënoo leen a convaincre doomu aadama yi ne xale bi dafa xaru loolee nit ñi mënuñu koo gëm laa la wax li nit ñi mënta gëm kay mooy troisième mandat waaye mi ngi xeeñ de tribune yéene kay ne moo taxit Moustapha Diakhaté waaw kaddu yi nga xam ne yëkkati ko daal dinay doy waar lool parce que ca yoo xam ne kon ñëpp ngi laam-laamee nag wàllum troisième mandat googu nee na Marème waaye nag danañu lancé kon suñu mouvement bi lé farlu jubanti Sénégal la tudd waaw daal di taxawal benn pétition ngir jàkkaarloog Macky Sall bu dee dafa bëgg ne kon troisième mandat ñu xeex ak moom parce que ñun nag bëgg nañ lu tolloog juróomi million ci ay doomu aadama daal di signé pétition boobee ngir troisième mandat du fi laa la wax ñëf te jamono jooje sur quotidien nee na tournée bi nga xam ne kon Macky Sall ma ngi koy tourné ca Fouta Gueye waaw maatam wàcc na waaw waaye Macky Sall kay na ay morceau xonq laa la wax dama ne la ñu a tey ngir kon président Macky Sall la ilaha illallah ndaw yàq xaalis laaste bët gànnaaru réew mi de ah mi lée Alaaji Malick Gaye directeur général u AGETIP waaw nee na Macky Sall yow loo wax def nga ko ñin kay ñoo ci des Alaaji Malick Gaye ci exclusive waaw ne homme d'état bu mel ni Macky Sall mi lée yéen a gii mu am ci Sénégal mais mosu fee am des yow AGETIP mooy wax ci samay kaddu dee alaaji Malick Gueye ci laas ne ñin kay ñin ñoo ci des rek laa la wax yéen kaa gi ne Cheikh Omar Andey ah waa dundam bëgg nañ ko de lool professeur Louis Lambaadou waaw démonstration de force bi nga xam ne Omar Sarr def na ko ca Dagana gëla ëpp na doy na waar exclusive yéen kaa ne ca Roos Béthio day waaw Faly Seck ah, du moroomu gars dama ne la yeneen responsable yi Faly Seck da leen a jël lab loo leen ca dex ga da leen a noyé de looloo tax ba président Macky Sall Faly Seck je vous félicite Faly Seck da nga koo yeyool ndax yaa baax ci réew mi eh way Samba direct news ne dama ne la daga na abadoor gële waaw Macky Sall day teertu nañ ko fa nag askan wa teertu nañ ko fa Omar Sarr day wàccee na daga na ñaar fukki juróom ca mairie ba dama ne la Omar Sarr wàccee na daga na waaye ji day futankobe yi day Cheikh Omar Anne la ñu àndal laa la wax Le Quotidien yéene ka ne gis nga ca Podor ge waaw Macky Sall leen ba juboo lébu yi day waxtaan nañ ba juboo ubil vox populi nañu maire bu Ndakaaru Ndiaye Jaal Joob ak Dakar Plateau waa lébu day daal dinañuy tànn Abdoulaye Diouf Sarr ak Alioune Ndoye <laughs> waaw sur dama ne leen lébu day tànn nañ nag seen candidat ngir bu Ndakaaru Ndiaye Jaal Joob nee nañ Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal imaam ratib bu Ndakaaru Alioune Moussa Samb waaw lakk na imaam bi nee Ndakaaru Ndiaye Jaal Joob Abdoulaye Diouf Sarr la tànn mooy suñ candidat Dakar Plateau Alioune Ndoye lañ parce que ñin lébu yi benn yoon imposé ay candidat fu laay jaay Dakar de Abdoulaye Daouda Diallo ci exclusive yéen kaay waaw nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di yuuxu ni lé nañ arrêté seen comédie yu politique bi laa la wax termine yéen kaay ne Adama Faye de ginnaaw ba mu yekkee lu mel ni xamee président Macky Sall waaw ma ngay door de xeex ba ca élection locale ya ca Grand Yoff kale ak programme solidarité communale ba termine yéen kaay ne Bougane Gueye day ginnaaw nag ba mu demee jàppale kon Ibrahima Gassama nee na Tiwaawoon Pël ñàkk fa maal Tiwaawoon Pël ñàkk tampi wal fajri ne gis nga ci diwaanu Podor ke waaw diggante Aïssata Tall Sall ak Racine Sy guerre bi day am de la guerre aura bel et bien lieu ca diwaanu Louga gële Mamour Diallo daal dinay song na kon Moustapha Diop côté yu miti yëpp Macky Sall da koy daw de critique yéene kaay ne intersyndicalu aviation civile ba day ak transport aérien waaw nee nañu duudu ka moom la ñu àndal ña ngay jàmmaarloo nag bi jëmmal na ca rajo nag parce que Ali Mané nee il faut ñu xalaataat modèle économique ba évidence yéene kaa ne en tout cas élection day Jurbel gële Dame Diop lañu investir laa la wax Pape Modou Fall day dëgg moo wóor waa ji mobilisé na de Las Badiane day ah ci exclusive yéene kaay waaw nee na gis nga opposant yi lée am na ca ñoo xam ne dañoo bëgg a taal réew mi dugal ko ci am guerre bu ñaaw maar day taali laas na waaw dem naa ca laa mujj Yékini day waaw diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier faral aha waaw parce que dañoo am na projet eh yooyu Samba Modou Lo day ci arène yéene kaay nee na Ama Baldé amul benn sens sama kanam waaye Zarko day Zarko waaw nee sama diggante ak Modou Lo c'est fini julli tubaab dem naa ca football ba info yéene kaay ne assemblée générale ordinaire fédération sénégalaise bu football waaw Augustin Senghor day nee na candidat la par consensus bu gars yi waxtaanee daal buy juboo looloo fi dul am <laughs> waaye yéen Augustin mi ak Macky jiite jiite jiite jiite doy na sëkk wax leen ci pétrole bi parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën ne la alaaji tëjal yi ndax jàppale kon lu toll juróom si seen i base jot nañu leen song base ñu ngi féetoon si arrondissement bu Niassia mu mel ni it base yooyu sax tey colonel bu commandant zone militaire numéro cinq dana fa dem nemmeeku takkader yi liggéey bu am solo bu nga xam ne jot nañu ko def si njëxtulaay bés bii dana xam ngeen ne kon euh, euh, li gox yu ca bari dafa yëngu euh, ci wàllu politique boo demee ca Fatick foofee Sitor Ndour moo fa samp ndëndëm fas yéene jàkkaarloo Matar Ba ngir jëlee ko ca mairie ba jamono jooje sa Kaolack ndaje maa ngi nekkoon ca chambre de commerce d'industrie bu euh, Kaolack foofee militant ya ñu ngi samp ndënd kii rek Aminata ture ngir mu nekk seen maire ñu àddu it jëmale euh, sa Tëngéej wàccaayu euh, nawet bi nga xam ne nar na andi ay complications saña dëkk sa fa tolloox projet bu gestion des eaux pluviales chantier ba dafa taxaw mu mel ni kon dañu ko abandonné loole nag tas yaakaaru askan wa nga xam ne euh, foofu rek la ñu yaakaaroon ne kon taw mi bu baree ndox mi it bu fa baree daañ ko mën a évacuer sina mu yombee ñëw ku sa benn bâtiment bu ñu fa tabax nga xam ne dafay tere ndox mi daal di avancé daañu sa ndax Omar Faye si bi la jotaay xibaar tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Mantan boobu lañ si àndal. ak euh, Mamadou euh, Fofana mu mel ni it euh, si bii la jotaay xibaar ci kanam tuuti ni mu leen ko junjee si ndorteel li xam ngeen ne kon daañu ànd ak waa Gëm sa bopp si seen tournée bi nga xam ne moom la ñu sumb tuddee ko tibb tànk Macky Sénégal tampi ñoom noonu la ñu ko tuddee heure bu jàppandee rek ci waa régie ñu ànd ak ñoom ñu wax ñu fu ñu toll ci seen tournée bi waaye it activité yax lañu sa namm ñu door bi la jotaay xibaar sa diwaanu Casamance sax l'armée bu Sénégal dafa song yenn ci ay fippu seen base yi yi juróom ci base jot nañu leen euh, euh, song mu mel ni kon waa MFDC ñoom ñoo fa nekkoon base yooyu ñu ngi nekkoon si arrondissement bu Niassia bokk na ci ah, base yi bu ah, Djilewoor bu ñàkk Ahinga Bagam ak nag dem eh, colonel commandant bu zone militaire numéro 5 bi jamono ji ñu ngi wax ne kon tey gisal ci ne bi sax dana fa dem nemmeeku liggéeyuka takkadeer yi du ñàkk daan ci ànd ndax Abdou ah, Rahman Diallo si sunu yeneen jotaayu xibaar waaye soxal nag eh, eh, El Hadj le député du peuple liggéey bu am solo bu nga xam ne l'armée bi mu ngi koy def foofee sa diwaanu Casamance juróom ci ay base jot nañu ko nangu ci fipp MNES dañu wax ne euh, lu nu mel bu dakkut jàmm mën na faf nag sax euh, si diwaan ba. waaw loolu moom lu lu jaadu la parce que rébellion ci réew moom mooy loolu donc foog ñu continuer sécuriser nit ñi du sax diggante. ay rebelle xëy na mais insécurité totale bi ñenn ñi jànkuwanteel ñu dem ci tool yi yenn saa yi ñu rey leen. yenn saa bi ci mujj mooy ndaw loolu euh, Ansoumane àndoon ak agent eaux et forêt yu mel noonu dañ ko dañ ko war a dakkal bi ci des ñi trafiqué bant yi. nga xam ni itam ci ma tey la ñuy doxee. yor ni ay ngànnaay. donc opération yu mel noonu mënut a ñàkk ngir askanu Casamance mën a nekk mën a nekk ci jàmm. Mm-hmm. donc euh, opération bu am solo la yu ñu war di def la. Mm-hmm. pour mën a indiwaat kaaraange foofu. Mm-hmm. moom dafa na. waaw euh, bu l'armée bi foofee sa diwaanu je crois lu am solo la surtout ci li nga xam ne moo jëm ci euh, sàmm kaaraange gi fa war a am. parce que nag nañ nañ fàttali ne coow la fa am taxoon na ay dëkk. askan jóge fa dem daanaka ci yeneen dëkk et je crois euh, bu tey jii nii bu fekkee ne armée bi mi ngi def lu am solo lool dina tax déjà xel dal fa benn ñaareel ba ñi nga xamoon ne jotoon nañ gàddaay ndaxte seen kaaraange xaj na dafa nekkoon euh, euh, ci xottu gerte seen bakkan dafa nekkoon plutôt ci xottu gerte. Mm. dina tax tey ñu mën a dellu si waat alors euh, li jëm ci wàllum trafic du bois bi nga xam ne daanaka la muy yóbbul xaalis ci Sénégal kenn xamuñu mu toll ñu koy jaarale biir Gambie je crois loolu bokk na ci lu tax mu am solo beneen bi mu di lu jëm ci braquage yu fay am tout le temps te askan ba war a mën a am nag du euh, sécurité je crois que ci rapport boobu noonu nañ koy analyser pour wax na ne euh, véritablement lu am solo surtout pour jàmm gën a sax fi nga xam ne moom mooy Casamance. village war na mat ay trente ans quarante ans ci ginnaaw ba léegi mën nañu delluwaat. donte am na ñu commencé woon doon dellu ndax fipp yi nga xam ne ñoo fa doon dicté seen i loi kon lu am solo la ñu euh, addu jëmale sa tëngeej fee nawet bi soo mayul dana métti lool sa ña nga xam ne ñoo dëkk sa pegg góob autoroute à ba rawatina ñu tolloo euh, fa ñu doon tabax euh, projet centre de gestion bu eaux pluviales yi nga xam ne yaakaar la woon ci askan wa yow sa tëngeej ngir nag ndoxum taw bu baree ñu mën koo ŋàcc waaye nag liggéey ba dafa taxaw muy bëri njortees kon dañu ko abandonné te ministre Omar Gueye moom moo ko fa dooroon ba léegi waxaatu si dara ñëw dooleeku si benn bâtiment bu nga xam ne dañ ko tabax foo xam ne ni ndox mi fa la daan jaar léegi nag njortees nañu ni kon taw mi bu baree rek ay gàllankoor lay àndu ci askan wa dañ si ànd ndax njiital leeral askan wi Omar Faye waxatuma la ak Sipres ñëpp gis nañ ne année bu nekk ni ñuy dund ñu métti ni ñuy dund ci période période hivernale li ñu ñi mënul concevoir mooy dañoo tabax benn magasin boo xamante ni ne fii ndox mi di jaar te Serigne Seck tabax ko de la compagnie C3S dina fi dañ parce que fa la ndox mi di jaar ndax lii dafa yéeme li ñu tabax fii mais projet bi ñuy wax de 17 milliards Omar Gueye yor ko dinañ doon wax rek ñu ngi defar xool leen projet bi dañu abandonné chantier bi te fii la ñu war a defar pour que ndox ndoxu taw bi mu ñëwee jaar fii dem ba ci autoroute à péage bi li am nii dafa mel ni même mala yi sax waruñu ko waxtu waxtuma laa ñun nit ñi ñu di ko dund mënuñu chaque année ñu dund situation bi dañuy man dama yërëm sax Macky Sall man à la limite parce que liñ koy wax ak li am du benn ci volcan lañ toog fu mu nekk nii fa ñu jëm ci déluge lañ jëm ñun ne bu demee ba sës day yëngatu te ñu si dara. lépp luñ ci war def nañ ko si def. jolis euh, Tivaouane Peulh de askan seen ak jàmbat gu njëkk moo di rek njàng mu jàppanti te la koy gën a euh, fësal moo dañu tabaxal leen benn se bu yees ndax dégg nañu dañu leen ko diggoon ndax ba ñu am màgget na lool jur ak ñàkkum kaaraange gu ma sëkk ci ndongo yi nga xam ne ñoo fay jàngee loolee nag jàmbat la bu njiital mouvement mon pays en avenir daal di yëkkati gannaaw ba ñu doon dara jaal ndongo yi nga xam ne euh, ñoo gën a lay résultat Ibrahima Sissoko moom it bokk si ñu samp seen dënd ci mairie bu Tivaouane Peulh ngir nag jël ko ci loxoy Papis Diop ñu teewlu ay kàddoom waaw loolu moom damay lancer un appel te président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall di ko lancé ak son gouvernement ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'éducation nationale pour wax leen tey suuf d'infrastructure surtout côté école li fi nekk ci infrastructure yi baaxul classes yi baaxul soo xoolee derrière moi peut yaa ngi waaj a daanu et pourtant suñu doom yi ñoo fi nekk je pense que loolu gis ko ñaaw na ba commune bu toll nii gis yenn conditions yi nekk fi donc damay ñaan juste état bi xam ne rôle moo indi Tivaouane Peulh Niaga réfectionner les écoles defaraat ko de telle sorte que tey jii Tivaouane Peulh ku ko gis ñee ko ku ko gis bëgg ko ba doo soxla dem beneen commune parce que xam lépp loo soxla mi ngi commune bi et tey jii ça vient à son heure ku gis lii gis eh, les ses élèves meilleurs là ñu premier leen ak ay résultats yu baax mérite nañu nekk naan nekk daana bonne condition si jàng ak ay jumtukaay yu bees yoo xam tey jii macha allah déwén président mun na fi génn ministre mun na fi génn député na fi génn lépp mun na fi génn parce que la crème leen Mamadou Fofana ni ko Omar Faye waxee sa uh, tëngee ci ay tabax yi nga xam ne yeggul te ñu ko jagleloon nawet bi uh, ba léegi ñu bàyyi ko fa ministre Omar Gueye moo ko fa defoon mujjewul continuer sa Tivaouane Peulh gis nga ab lycée la leen diggoon te ba fii France daal di xëddeen lycée ba ñu fa wane gis nga miire na muy xaree mel ni kon dina ca baax uh, gouvernement bi am la bonne information ngir nag nekk nu askan bi mën a jàppandi euh, lu jëm ci wàllum école yi d'abord boo xoolee Sénégal mi ngi ci six mille cent et quelques abris provisoires moo lay wan ne six mille six cent classes kon ci pour euh, nekkinu ndongo yi surtout gën a mucc ayib te pourtant li ci gën a doy waar moo dina Sénégal six million élèves la am ñoo xam ne ñi ngi ci daara ju ndaw ji ñi nga xam ne ñoo nekk euh, ci euh, CI jëm ba fi nga xam ne ni moom mooy euh, terminal donc pour wane ne dayoo bi nga xam ne jàng amee na ko solo ci Sénégal mais boo xoolee infrastructure yi nga xam ne moom moo ko war a accompagner amu ci beneen bi mooy infrastructure yi nga xam ne existant la d'abord moom moo fi nekk yu ci bëri taax ya dafa màgget parce que ay école yoo xam ne ñi ngi ko créé ca atum mille neuf cent soixante ba léegi ñu taxawal ko fi wala un peu avant sax ba léegi taax yooyu en soixante ans d' existence cela veut dire que màgget na mm-hmm. donc xale yi ñu ngi dundu daanaka ci insécurité boo xam ne bu doy waar la ñaata yoon nañ fi dégg ay classes yoo xam ne daanu na ci kaw ndongo. donc loolu mooy wane ne lu ñuy def yenn yi priorité am na lu ko gën a nekk priorité. parce que dëkk buy dem ci développement mooy mooy lan mooy xale yi war nañ mën a jàng jàng gu am solo war nañ mën a feebar faju war nañ xiif mën a lekk donc foofu la développement di démarrer que ay tali que ay oto ay ndaraan ak ay li nga xam ne moom mooy autoraay ak yooyu hmm. am na yeneen priorité yoo gën a moo xam ne moo gën am solo beneen bi moo koy jeexalee mooy lu Omar Faye wax li nga xam ne moom moo am ci euh, ni ñuy joxe nit ñi parce que fu mu mm. wax fi bâtiment la fa nit tabax te loolu c'est la faute je crois au service déconcentré de l'État parce que bu fekkee ne ñoom ñooy dégg oui munoo jox nit quand muy tabax ci yoonu ndox loolu mhm. kenn mënu ko concevoir beneen bi mooy nit ñi dañoo dem dëkk foo xam ne yoonu ndox la loolu yëpp ça pose problème bu nawet mhm. ñëwee c'est total euh, loolu day indi ñu mën a am ay jafe-jafe ci li nga xam ne moo eh, jëm ci inondation yi El Hadj ñu gis ne kon jamono ji dañoo seetlu mouvement citoyen yi bari lool euh, bu ñu waaye politique yi lu ñu la wax duñu ko def kon nag jot na askan wi jël mbir yi def ko seen yëfu bopp ngir lu suqali seen i gox ñu teew ay kàddoom ba noppi doo ko ñëw ci commentaire yi. yu bëri yoo xamante ne ñoom moom la ñuy prôné bokk na ci le non respect de la parole de la parole donnée bokk na ci la transhumance bokk na ci euh, l' alternance nga xam ne dafa war a doon une réalité yooyu noonu yëpp moo waral population bi seen bopp comme gisuñu seen bopp ci parti politique ak politiciens yi ñu daal di ñoom seen bopp dajaloo créer mouvement moo waral mouvement yi bare fi mu toll nii. ñun tëjul ñu suñu bopp kenn. tëjuluñ suñu buntu kenn donc li fi nekk rek mooy euh, ànd ay ñi mën a ànd rek ñooy ànd ak ñi war ànd ñooy ànd ñoom la ñuy wax moo di dañuy yóbbu retraite politiciens yi nga xam ne yàgg nañu ci réew mi te wane nañu seen i kon jot na euh, ñoom ñu yor seen i mouvement citoyen dëgg euh, dëgg seen bopp taxaw askan wi. te li ñuy def dafa am solo. Mhm. malheureusement si Sénégalais yi souvent ñu gis ni ñu mel nii nga xam ne dëkk bu nekk localité bu nekk war na am ay mouvement yi def face ak politiciens yi fonk seen ay kàddu yi def face maire yi nga xam ne seen ay gestion baaxul mais bala ñoo am ñaar ñetti weer ñu commencé leen taxer ay politiciens. Mhm. fekk leen ci seen milieu tapas leen tooñ leen xeexook ñoom bu ko defee askan wi lu ñuy lu ñuy interpréter politiciens yi politiciens rek ngay dégg léegi kenn mënta am mouvement citoyen boo xam ne da ngay taxaw di défendre cause bu noble cest à que dañu indi benn slogan bu bon Sénégal mooy oui ou non oui ou non mm-hmm. avec moi ou contre moi te loolu du dëgg nit ki war na am sañ-sañu duwa ànd ak yow mais contre ma la sama idée ngay jo lay joxe ci ni ngay doxale réew mi lu dëng ma fàttali la ne lii dafa dëng lu jub ma apprécier tàccu la. Mhm. alors politiciens yi doxewuñu noonu. politiciens yi da ngay ànd ak ñoom baa ñu taxé leen noonu bu ko defee comme ëpp ñu la doole ci dëkk ba gënuñu la juddu tanewuñu la fa ëpp lu njariñ ci askan wa nga taxawal benn mouvement ngir def ko fas li ñuy mujjee mooy interprétation yi mooy taxé la yow comme politicien alors yii dafa am solo ndaw lu nekk da nga war a adhéré ci mouvement. tey mhm. néew na ay ndaw yoo xam ne am nañu sañ-sañu jël benn huissier de justice dem ci seen maire dëkk. demandé ko ay explication ci yenn ci ay réalisation wala yenn ci ay gestion Ahmed Aïdara def na ko Guédiawaye Ahmed Diallo def na ko Ngexox am na yeneen mouvement yu ko def mais tey mouvement yi xamuñu sax loolu jaadu na te amul benn maire booy jox demande d'explication mu répondre la alors que chaque citoyen am na sañ-sañu xam droit wum la xam gestion goxam yooyu nag mouvement yi ñoo ñoo ci mën a jàppale nit ñi moo tax ndaw ñi li ma leen di ñaax ñu bàyyi coowal politique yi nga xamante ni bi nax nañu leen lekk nañ seen xaalis délapidé nañu seen suuf fu ne fu ne fu teraanga nekk bëgg nañ ko accaparer ñii ànd ak maire yi ci gox goxaat doo nga gis ay chômeur yu am ñaar ba ñetti oto ah, chômeur koo xam ne xëyoo gontoo fu ñuy business lu ñuy jaay lu ñuy njublang amuñu ko moo lay wane gestion bi leerul mhm. suq boo xam ne chômeur nga di a topp maire kese bu la permettre nga am nga xam ni na nga ko amee normalu légalu parce que àdduna am-am du kàcc du maanaam du wax lu dëgg. Mm. da ngay liggéey ñax tedd. loolu nag moo tax mouvement yi faw ñu dooleel leen li waa ji wax nu mu tudd jàmbaar dëgg la. Mm-hmm. gox bu nekk na am ay mouvement citoyen Sénégal yi am sañu joxe joxe joxe seen xalaat. Mm-hmm. ci gox mais surtout ak Sénégal ni muy doxee. ni muy doxee looloo sabab boo demee sa euh, commune bu euh, Djilor euh, Djilor Saloum ñoo ne la ñu tudd si la nga xam ne seen gox ba ñoom nee nañu ndaw yi ci boppam ñoo dëkk sa gox ba nee nañu nguur gi daf leen fullaalul faalew leen amuñu da benn réalisation bu nga xam ne def nañu ko fa ñoom ndaw yi ñu tënk ñoom it seen ab kuréel taxawal seen mouvement tuddee ko rapide sa gox seen bëgg-bëgg sax moo di soobu ci élection locale yi ngir nag ñoom ñu mën a suqali seen bopp seen gox ay ndaw ñu kenn ci ñoom moo déterminé nun vécu quotidien bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla moom la ñu yaakaaree bépp gouvernement bi fi ñëwaat en 2024 loolu nag dafa politique boobu dafa war a commencé ci gox-goxaan yi nan lañ ko commencé ci gox-goxaan yi ñu jàppalante parce que gis ngeen problème yi fi am problème yu day waa ndox am nañ ko problème ndox am nañ ko loolu nag pour nit ñi réussir ko il faut ñu xam li ngeen bëgg pour ñu xam li ngeen bëgg il faut ngeen dajaloo en organisation collective confrontation dana am war a dox si diggante euh, ki nga xam ne mooy Ibrahima Moulay Touré inspecteur principal bu trésor conseiller technique euh, bu directeur général bu comptabilité publique bu trésor waaye it euh, moom fësal na ni kon dana samp ndëndëm ngir bu ci jongante kooku xaan yi fas yéene jàkkaarloo Abdoulaye Diop maire ba ci boppam nekk ministre de la culture et de la communication waaye nag moom nee na naam mi ngi dem ci turu parti biir bu Omar Sarr waaye terew nag am na ñi nga xam ne ñu ngi si ku jege mi ak ñoom ngir ñu mën a ànd ci ah, jongante yi leeral yi ak Ibrahima Diallo. du di Abdoulaye Diop ministre de la culture et de la communication kii di Ibrahima Moulay Touré nekk inspecteur principal du trésor nekk tam conseiller technique directeur général comptabilité publique ak trésor fësal na ni candidat la ci élection locale yu ñuy dëgmal. donc boo PLD. mais dinañ liggéey aussi ak parti am na yeneen parti ñuy def ay ñu ngi ay négociation dinañ def une liste liste bu cible liste boo xam ne ne pour liste parti nangam mais parti cible la moo tax ñu ngi liggéey pour am une grande coalition avec donc loolu moom nañu ne ni incha allah Moulay Touré dina nekk candidat à décision bu ni mel président bu promesse promouvoir l'émergence à Sédhiou jël na ko ci sem Mané Ba bu Sédhiou fu mu doon parrainé lamb ci teewaay mbooloo mu takku àndoon ak Lac de Guiers gunge woon ngeen nag mën a dooraa seen i activité ci wàllu politique muy waa parti de la réforme euh, muy euh, seen tournée bu nga xam ne dañu ko sumb responsable yi war a see dajeex euh, seen i militant secrétaire général bu parti de la réforme daal see profito moom nag ngir ñaawlu lu baax ña nga xam ne ñu yëkkati ay kàddu di ñaaw lu tournée bi nga xam ne njiitu réewum président Macky Sall mu ngi koy amal Amadou Dawa Diallo la ñuy teewlu ay kaddoom ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck bañ bañ na nekk benn yoon danañ fi ñëwaat defi laa leen lancé quoi la grande coalition présidentielle incha allah rabbi victoire bi ñuy yaakaar si 23 janvier 2022 euh, ñun de waa parti de la réforme ak ñi ñu àndal incha allah rabbi fii lañ ko nar a fet mais du loo gis rek nga ne non lii man gisuma ko ñi ne naaj baa ngi nga ne déedéet lii du naaj xëy na peut-être euh, c'est la lune bu ko defee ñooñu la ñuy wax la ñuy waxal ne maanaam politique dafa am temps am su jeexee bàyyi leen ko ci ginnaaw ñu jublu ci liggéey bi. lañuy wutali foofee ki fi nekkoon ab jëwriñ moom Sitor Ndour te mu jiite jamono jii moom mooy PCA bu SAED moom dafa samp na ndëm fas yéene nag jële Matar Ba sa mairie ba fësal na candidature am euh, ci kanamu sunu ko correspondant Alioune Badara Sonko al bu kund ci jamonoy Abdoulaye Wade di Sitor Ndour moom nag nëbbul benn yoon ni jamono jii dafa bëgg nekk maire bu Fatick wala sax conseil départemental. tey jii population yi ak samay militant liñ ma sant moom lay def nii tey mooy formellement je déclare ma candidature aussi bien à la mairie de la ville de Fatick qu'au conseil départemental de Fatick. moom nag nee na candidature bi ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom ñoo ko ko sas. j'ai été surpris mbooloo mi yëpp ñëw na te bi ñu ñëwee seen kàddu lenn la dañ ma ne président nag à la kulihaal il faut bu ñu dégloo population yi ci commune de Fatick ak yeneen communes yi ak département bi il faut nga nekk candidat ne ma élection yi ñu jëm nii ne ma élection yi jëm nii munoo waaf mënta ne waaye Sitor Ndour nag dàqul benn yoon topp ci ki nga xamante ne moom la Macky Sall joxoñ ngir mu diriger liste bi fii ci diwaanu Fatick dañuy wutali sa wala sa gannaaw Fatick dañuy wutali sa Kaolack foofee it chambre de commerce et industrie euh, ba ci boppam moo fa dal dalaloon euh, benn mobilisation bu mag euh, seen i militant daal di say profité ñoom ñuy far ci APR samp ndëndu kii di sa Touré di Mimi Touré ngir nag mu nekk seen candidat si élection yi ñu dëgmal ñu teewlu sa Alioune Kane sunu correspondant bu ñu nekkal sa diwaanu Kaolack. kii di Aminata Touré ngir mu doon candidat ci mairie bu Kaolack président bu mouvement bile di Maodo jàlloo wone na lu tax ñu taamu ko. parce que Kaolack dañoo gis ne dafa sooxe ci yu bëree bëri bëri ñu am yaakaar ne jëmm jooju nga xam ne mooy Aminata Touré bu ñu ko investir mu ñëw nekk ci quinzième maire de la ville problème mu Kaolack dana réglé wu dañ ko teg ci njàngam dañ ko teg ci bëgg dëkkam. moo tax ACAT ak ñi mu àndal ak population Kaolack jeunesse bi jigéen ñi euh, association des femmes yi président Jakarta naa ne ñu ngi fi ba bàjjenu gox yi ñu ngi fi ñëpp mobilisé wu porté seen choix ci moom la ñuy ñaan ñu ngi ciy jëm janvier deux mille vingt mu ñëw ñu jëfal ko mairie Kaolack. mobilisation bu mag lañ def nag ci chambre de commerce et d' industrie bu Kaolack ngir daal investir kii di Aminata Touré lii nag. muy investiture bi nga xamante ne yokku na ci list responsable politique yu APR yi wut mairie bu Kaolack bi nga xamante ne Mariama Sarr moo ci toog. ñoo ko gisandoo sa euh, Fatick Sitor Ndour samp dëndëm fas yéene jàkkaarloo Matar Ba euh, sa Kaolack am na Touré ñu investir ko ñu ngi koy wax sànq sa Podor Racine euh, si ak kii di Aïssata Tall Sall ndax liste parallèle bi ñu doon bañ moom mu doon dëgg. non loolu réalité la te mënatuñ ko mënu ko bañ. parce que mhm. loolu mooy am ci élection locale yi. Euh, Macky Sall xañ na dafa wax mais xam na ne lu mu wax sax loolu mënul nekk de telle sorte que fi nga xam ne sax fa la fekk baax mu di Fatick maire ba daa toog di Matar ba Sitor nduur dëkk ko en direct ne ko candidat la ci euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, mairie Fatick alors loolu la demee ca fa nga xam ne moom mooy Kaolack donc loolu liste parallèle kenn mënu ko fi bañ et je crois sax ñoom ci seeni xalaat tey dem nañ ba xam na ne liste parallèle yi mën na doon avantage ci ñoom pourquoi parce que tey bu fekkee ne jël nañ koo xam te ne kii kat ci ñoom la bokk am keneen ku nekk ca beneen wàll ga bokk ci ñoom même bu kii gañewul keneen ka gañe donc day tax li nga xam ne mairie ba day dox day nekk ci seen loxo donc de telle sort que mun na nekk jeu boo xam ne dañ koy doxal ci kaw askan wi askan wi ba na comprendre ne ñii kat ils sont de connivence ñoo nekk mais en réalité ñoom ñëpp ñoo bokk ku ñuy liggéeyal mu di président Macky Sall. mu ngoog El Hadj député du peuple liste parallèle moom finalement euh, président Macky Sall gëm ne mën na koo bañ wala ay ay pexe yi ñu doon la rek. gisaguma liste parallèle de. Hmm. mouvement citoyen yi fi jaar moom. mun nañu nekk mun nañu ay liste waaw mais liste parallèle yi ma gis. Sitor hmm. Ndour mënut a mënut a teggi liste bu Macky Sall teg. Hmm. est-ce que dañ ko may fit wax loo ko pour dam ni tànk Matar ba ci suuf question la wóoruma. Hmm. <laughs> mais Sitor Ndour moom ku ne xam na ni yebul Macky Sall pour dévier ko Fatick. bi ci des mooy ñu ngi wax bëgg démb semaine bi passé rencontre Aminata Touré ak Macky Sall. Macky Sall nu ko ay militants bëgg bëgg a tabbe. bëgg fa jëlee Mariama ni euh, ñu ko bëgg a tabbee ci ci bopp liste ñu ni liste parallèle lay nekk te ñoom ñu gisee te bi ñuy gisee fekki fekki wuñu ko. ñoom mm-hmm. ñoom ñaari ponkali euh, bu ñu nax nit ñi bu ñu leen lëre ci début ba neewoon naa leen. Mm-hmm. góoma liste parallèle. dañuy xëccoo am fii mbooloo am fii mbooloo pour mën a dajale dominer fu ñu foog ni xëy na opposition bi mën nañ leen fa ëpp doole. stratégie la. stratégie wu la ñuy def ni ngir pëndal. mais ñaari annonce yi nga xam ne am na ci man benn laa ci gëmul. maam mm-hmm. boo déggee dégg dëgg sax ci gàttal. élection locale yi laa gëmul. ne dina am janvier deux mille vingt deux. dina am janvier dina euh, moom laa gëmagul mm-hmm. parce que juróom-benn weer moo dox ci diggante bi. Mm-hmm. xalaata li ci war a am lépp. même décret présidentiel bi signé élection yi saxalaguñu ko date dong lañu jàpp. Mm. date nag bokkut ak décret bu ñuy jëlee date nga xam ni lépp leer na. Euh, wax guñu ci xaalis bi financé euh, élection yi xaalis bëri la laaj. xamaguñu nu ñuy trier list yi ñuy valide ak yu ñu dul valide loolu du liggéey benn weer du liggéey ñaari weer sans compter ñu war a binduwaat pour bokk ci élection yi parce que am nañu dix huit ans bi ñu génnee élection présidentielle yi ak léegi. Euh, awaguñu ci yoonu def élection yi ci date normale bi mais du élection locale yi moo ma gën a metti mais pour su élection législative yi parce que même élection locale yi bu ñu ko defee le 23 janvier dafay dàq automatiquement élection législative mhm. te def bi laa wóolugul maam am réew nag mënuñu fay dund te bépp institution bu fa nekk di doxal doxalin boo xam ni légalul légitimul mhm. li ci maire yi dund ci ñaari at yoo xamante fekk seen mandat jeex na doy na sëkk nga yokkaat ci au conseil des collectivités territorial bu ñu demee ba dàqat élection législative yi maintenant yan élection la ñuy respecté yan élection alors moment bi ñu waxee euh, mandat bu valable ak bu valable mandat wu sept ans ñu ni bokkul ci bi ñuy changé constitution bi di wax ay mandat wu cinq ans cest à yi fokk ñu respecté Sénégalais ci yenn ci ay kaddu yenn décision yoo wax bu ñu koy jël wala yenn euh, propos yoo xam bu ñu koy émettre war nañ sax seet yàlla ak seen diggante ak askan wi leen faloon xam ne am nañu askan wi leen gën a yeewu ñoom mm-hmm. fakkasto loolu leen teg fi ñu teg fi ñu nekk donc nañu mm-hmm. respecté démocratie bi tax ñoom ñu falu démocratie bi tax suñu existence am muy mu nekk ab peuple te démocratie nag mënoo ko respecté fii que respecté woo datu élection yi muy calendrier électoral maam dafa leer ñu wutali euh, ak euh, sa Medina njiital gëm sa bopp moom dafa demoon doon seeti ji kii di euh, Bamba Fall si ab ndaje ba mu fa amoon mu daal see profito yëkk say kàddu di ko ñaax ngir mu wéy di liggéey ndaw yi impliqué leen ngir nag jongante gox goxaan yi ñu dëgmal bugaan ngay daan yi ñu teewlu ay kàddoom. foo gestu di ma gis ci sa ginnaaw parce biir na ma ne yow mii. yow yaa gën ci Médina te waa Médina yow mii la ñu beneen dénkaane bi ma leen di dénk monsieur le maire il faut pousser cette jeunesse à relever le défi de la participation pour les prochaines locales monsieur le maire dañoo bëgg ces jeunes la nga boole leen ci biir liste yi ñu nekk ay conseillers bokk ci ñuy décider pour Médina parce que cette jeunesse c'est l'avenir du Sénégal Bougane Gueye Dany ba mu daanalee ay kàddoom moom Bamba Fall maire ba jot naa yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko moom it. te waa Medina ñu bon ñi fi ne ñoo pousse ci ñu yónnee audit ba ñuy ñëwee xam nga lu ma leen wax dangeen di sonn mais dërëm ta dërëmu Medina doo leen ko jàpp ci sama loxo ndax man aw ma salaire may naa ko imaam yi man samay billet avion yi may voyager musu maire musu Medina musu koo dagg te tey ñeenti at nii. xaalisu Medina ci investissement musuma koo laal damaa dajale ñeenti at ci mu ngoog mu dee kàddu yu tukkee ci maire euh, Bamba Fall mu mel ni kat ci kanam tuuti ni ma leen ko waxee rek bu fekkee jàppandi na parce que maa leen ko promettre dinañ ànd ak waa gëm sa bopp direct si seen tournée bi xam ne moom la ñu sumb euh, ñoom waa tournée bi ñu tuddee euh, tibb tànk mag yi heure bu jàppandee rek laata ñuy tëj bu dul loolu nag ñu jox leen rendez-vous du ñàkk rek ëllëg ak waa gëm sa bopp mais bon bu jàppandee rek waa régie nañ ko wax acca ñu jàll si ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon day perturbé quoi chimère <laughs> chimère maba md <laughs> non te dañuy perturbé quoi dañ may mbalak gis nga dañuy nekk si kii bi dama mbalak seen weekend a neex xëy na ah seen weekend a neex amul benn problème <laughs> ay ca Pape Manda maa maa ngi laa fay bu baax a baax moom may alhamdulilah naka gox ba waaw waaw bu baax joxoon nga ma say relance xam nga man fu nekk nii joxoon nga ma say relance da ah, ñu fas gee nekk ci euh, vingtième journée Ligue 1 Sénégal euh, Tëngéej FC mu mel ni dëggal na boppam ci kanam classement bi. waaw waxtu bi nag mën nañ jàpp ne kon sa équipe ba di nag Tëngéej FC gannaaw ba mu daanee nag ñi di waa AS Douane ñeenti bal ci dara kon nag gën na dëggal boppam ci euh, bopp championnat bu Ligue 1 bu Sénégal waxtu bi kon moom am na nag lu toll ci 41 points rawee ñi di waa AS Pikine juróomi poñ ndaxte AS Pikine 36 points la am ñii nag. excellence bu Thiès boobu la jongante nag dañ ko daax ba euh, jimmi jamono Casa Sport moom moo daan nag daan yu métti Dakar Sacré-Cœur euh, juróomi bal ci dara jàmbaar moom tamit daan ñi di ñett ci dara Mbour Petite Côte moom nag moo génn ci euh, derbi Mbour waa bi daan ñi di waa Stade de Mbour benn bal ci dara kon Jaraaf bu Ndakaaru moom moo daan ñi di waa US Gorée ñaar ci dara kon mu nekk victoire boo xam ne relancé waat na bu baax a baax Jaraaf nag ci championnat bi en tout cas bu ñu sukkandiko ci kërim tàggat di Cheikh na ne daal championnat bi nag dara jeexagu ci ñu ko ak Soxna Fall ni ki noonu El Hadj xaw nax seen bopp ndaxte ñun tey vingt cinq points amoon ak ñetti points ça fait vingt huit si équipe bu am ñaari match retard de championnat bi des presque yeneen six journées kon ce qui veut dire que Gorée mi ngi si course yi parce que aussi bi ñuy jox équipe bi moo doon Gorée dellu Afrique te dellu Afrique du jaarul furul jaraaf kon dellu Afrique du jaar lulul gagné équipe bi nga xamante nii gagné li nga xam mooy championnat bi wala gagné li nga xam moom mooy coupe du Sénégal ba nga xam ni kon ñoo ngi si loolu hmm, tey ñetti points yi ñu am tey fu tey boole ñu ful ko si points yi ñu amoon ba nga xamante ni dafa am comme ni nga ko waxee léegi benn yëkkati bi nga xam daf ñuy yëkkati yëkkati jox équipe bi confiance ba nga xamante ni daan mën dëgmal match bi di dimanche contre Stade Mbour si anam yi gën a mucc ayib nag kii di Moussa Diatta moom mi nag mooy tàggat ñi US Gorée mu gis na ne daal moom équipe am nag dara nag weesoogul ngir nag mu desandi ci Ligue 1 bi kon ñu jàpp ne nag ci ñaar fukkeelu bëccëg bi lu toll ci fukk ak juróomi but la ñu dugal juróomi ci ay victoire ba benn match nul Ligue 2 bi nag jàppal ne waxtu bi tamit Guédiawaye FC daanaka moom tamit gën naa jege nag Ligue 1 bi ndaxte moom am na 43 points dafa daan nag ñi di waa Port Autonome ci dara Duc ak ñi di waa Amitié Dakar Université Club kon moom mujj am ndam ci kawam benn ci dara waa US Wakam benn ci dara kon ñu jàpp jàpp tamit Renaissance ak Sonacos zéro but partout la ñu def Kër Madior ak Demba Diop ni ki tey nag mooy ndar kepp lu jëm ci wàllum vingtième journée bi ci Ligue 2 bi euh, bu vingt euh, dix-sept heures jotee la jogante Africa pour moo foot Linguère bu Saint-Louis ni noonu jamono bu Fatick ak euh, Thiès FC dañ ko dàq ba jimi jamono ayca ñaar du jëmale ci CAN Cameroun deux mille vingt deux mu mel ni kon ticket bu mujj bi diggante Sierra Leone ndax beneen kan ma ko ciy jël. waaw tey nag lañ ko ndax teg boobu la jongante nag dañ koo dàq di ko fas yéene footballé foofu ca Guinée Conakry kon Sierra Leone ak beneen ku ci gagné rek tey yaa fas yéene nag dem foofu ca CAN Cameroun ci weerum janvier ci atum deux mille vingt waaye ñu jàpp nag waxtu wi kon écurie yi nag ñoom ñoo gën a nekk en pole position ndaxte ñoom soo xoolee am nañ nag lu taw lu ci euh, juróom-ñaari poñ kon mu mel ni ñoom ñu ne ba bu ñu amee match ñu lekk dañuy qualifié ci boobule Coupe d'Afrique des Nations l'équipe équipe bu nag ba Sierra pour nag moo mën a qualifié faaw mu am ndam ci kaw ñii di waa Bénin ngir mën a nag mottali ñaar fukk ak ñeenti équipe yoo fas yéene teew foofu ca Cameroun. ñu àddu jëmale ci programme résultat Coupe d'Europe ak nag Copa América. waaw tey jëlee nag la ñuy lu jëm ci wàllum. bëccëg bu njëkk jëm ci euh, coupe d'Europe tey kon ñu jàpp ne bu 13 jotee Écosse ak République tchèque lay doon loolu nag mooy suite euh, groupe euh, D bi démb nag Pays-Bas moo daan ñuy Ukraine ci groupe D bi ñett ci ñaar tey ci groupe bi kon 16h Pologne ak Slovaquie lay doon 19h nag Espagne moo fas yéene laale ak ñi di waa lu jëm nag ci wàllum Copa bi ni démb lañ ko tàmbali foofu ca Brésil Brésil nag moo daan ñi di waa Venezuela ñett ci dara Colombie benn ci dara kon Argentine ak Chili lay doon jàpp ci groupe A bi 23h59 Paraguay ak Bolivie lay doon ñu jeexale ko rek ak lu jëm ci wàllum làmb ak lii di bokk su ndax si soo xoolee kuréel gii di formation et insertion des lutteurs du Sénégal di FILS bi nga xam ne di FILS nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Mboup moo ko dirigé ak euh, Mamoun seen nekk président fédération bu boxe ñoom nag signé nañu ab convention ngir nag tàggat lutteurs yi jëm ci wàllum boxe dañoo bëgg rek mooy yenn ci ay lutteurs yi nga xam ne amuñu combat ñu intégré nag euh, boxe boobu nga xam ne war na mën a yóbbu Sénégal fu sori ñu teewlu leen ñoom ñaar. fédération sénégalaise de bokk dañoo bokk objectif sport dafay euh, entraîner jeunesse sénégalaise ci l'excellence parce que compétition la te ku ñu waxee compétition fin ba gagné lañ ci wax te kuy gagné nag moom ñun loolu la ñu wër un Sénégal qui gagne loolu la ñu soxla un Sénégal qui gagne avec ses lutteurs mais avec ses boxeurs aussi parce que ku ne xam na ni boxe ak euh, ak ak ak six ak neuf la boxe bi lañ bëgg tey mbër yi nga xam ne tey ñu ngi ci làmb ji tey y a plus de quatre mille six cent licenciés qui au Sénégal tey booy seet at bu ne lu tolloog cent lutteurs ñoom ñooy compétir léegi nag ña ca des war nañoo mën a ñëw wàll yaan ci boxe bi boxe lu nekk lu nekk lu am solo loo xam ni ñoo ñu la ñu bëgg tey ànd ak waa fédération boxe tey ci teewaayu DG Port mu ñëw assister ko bëgg ñu ci accompagner ñu nag waa fédération fexe club ñu ubbi ko xool na la ñuy former xale yi jéem leen a jàppale ba ni ñuy amee cachet ci làmb ji tey ñu koy am cachet ci ci boxe bi. moo dirigé euh, lii di fils di formation insertion des lutteurs du Sénégal la ñu ndarkeppe nag lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf jaajëf Euh, Média le donne ak Simon Pierre Faye. 13 euh, li nga xam ne moo xew géeju Malika quand même. waaw na cinq parce que juróom-ñeent doomu aadama dañoo ñàkk seen bakkan te dañoo lab. ah neuf la neuf. actuellement dañoo ñàkk seen bakkan. Mhm. leen. ñeent ñett yóbbu nañ leen pour secourir leen donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la jamono ji lay xew ci géeju géejawaay ak Malika c' est des plages interdites. waaw je crois nit ñi war nañ ci bàyyi xel. autorité yi quand même jël ci ay matukaay. mais am na signal bi wane ne euh, plage. oui plage interdite la. te neuf yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan actuellement amoon na trois élèves yoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan en l' espace d' une semaine donc ça te fait. Hmm. douze personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan te été bi mi ngi doog a. mi ngi doog a mesure d'accompagnement mhm. comme c'est une plage interdite mhm. ne ñu jéem a xool ni ñu mën a dissuader quand même les population ñu bañ a dem di fa sangu ji wala bu loolu mënta ñàkk ba mënta ñàkk nañu fa def ay maître nageur dépêché fa la gendarmerie yooyu bu ko defee dinañ mën a tax nit ñi dinañ mën a féexlu si mais pour pas quand ñuy dugg ci biir géej gi ba di fa ñàkk seen bakkan surtout ni ñu defoon ci covid bi sax doon tere plage yi et puis yaakaar jamono ji soxla nañu lu ni mel daanaka moom ñu dee bariwu ci plage hmm? parce que covid bi dañu jëloon ay matuwaay teg leen xam nga itam ay force de nga itam loolu. Hmm. loolu rôle état bi la. pour ñu détacher ay ay ay ay ay gendarme ak ay policiers ñu nekk ci kanamu plage. parce que xale ASP yi sax baax na ñu teg leen. xamul. Hmm. te boo seetee nombre bi ñuy bi ñuy yóbbu foofu taxul mu bëri lool. Hmm. donc rigueur la laaj cest à que. dañu dafa mel ni dundinu askan wi tënuwuñ ci compte ba parce que xale xale la. gis nga way juri téye leen seen doom way juri amul ku mu ci doon ñun ñëpp. <coughs> yaa ngi toll am na âge boo xam ni ñu ciy toll. diggante quinze wuti dix huit ba vingt huit ans da ngay génn te kenn du la yëg. Hmm. da ngay am doole da ngay def sport dangay def nangam nangam. donc mais responsabilité yi gouvernement bi ci wàllu boobu ak collectivité territoriale yi. Hmm, hmm. nañu fexe yóbbu foofu ay way takk der ñu accompagner xale yi miinante ak ñoom.

plage yu nga xam ne kenn parce que boo amee plage interdite quand war na am na plage yoo xam ne ne nangu ne nit ñi sangu fa mais bu ci privatisation duggee aussi lépp ñu ci ut xaalis utum koppar aussi ça pose problème kon xale dañuy rëcc dem ci nga xam ne épanouissement épanouissement dafa war a ci nekk fa sax ñaaw plage ñu autorisé pour ñu sangu fa li ëpp dañ ko privatiser loolu moo jëkk a ñaaw loolu mooy gàcc ci am réew loolu mooy yéen waa Sénégal yéen yéen ay mala ngeen ci dëkk mooy yéen naw la wule mérito wulee am dara ki ko privatisé fan la ko teg lan la ci moom est-ce que da ko donne ci ay maamam est ko donne ci ay maamam pour jo jël ko jox ko benn borom barke mu am sañ sañu dong di ko exploité di ci amus tuutam di fa sangoog njabootam doomi baadoole yi ñu am fu ñu leen jagleel foo xam ne ci géej gi ku fa dugg sa tànk ba tax dañ ko mosoon di aaye mm-hmm. eh, loolu loolu même mouvement citoyen yi di xeex war nañ def loolu dëggantaan un combat mm-hmm. parce que injustice ñu jël fi ñu autorisé te ñu ne nit mu na faa sangu te du nekk ci benn danger. Mm. ñu jël ko jox ko borom barke yi ki ko jox sañu ko moom mi ko jël sañu ko ñi signé kii di tax mu am ko sañu ko. c'est honte la. nga am am peex sax da ngay. gàcce la ah? loolu gàcce la ci am. soo xoolee plage yu nekk ci banlieue bi yëpp. c'est des plages yoo xam ne c'est interdit pour la. plage yëpp espace ñu aménage booy dafa def ay activité suñu suñu dëkk yi amul lenn luy sàmm suñu environnement bañ nañ ko ba ñu léegi boo waxee environnement sax dañuy foog ni tonni mbalit laak bale bale tali <laughs> je te xamuñu sax verdure. bilaay espace vert espace espace d'épanouissement mais dañuy recourir dem ci kii. mais ñu demee ci géej dañuy ñàkk seen bakkan li Mansour wax bu fekkee ne tabaxaloo leen tey fu ñu mën a foowee pour ne leen géej gi baaxul wala boog boo leen di dem ngeen dem beneen géej parce que fii dangeen ko mën a ki mais bu fekkee xale bi amul moyen te banlieue moo concentré wu oui li ëpp ci population ça pose problème euh, li nga xam ne moom moo fa des ni suuf ñu ngi koy bëgg a tongtonge ay naan wéy lii wàllu président la lii wàllu promoteur ba la lii wàllu ay seni foot ak ay yooyu ay base de vie loolu du fi jàll loolu nañ ko xam defal askan wi lay tax ñu ñu mën a foo ta mën a foo ta ñi nga xam ne comme borom barke yi la ni ñuy yóbbee seen doom loolu mooy dëgg ca gox ya. jaajëf jaajëf respecté wuñ ñu quoi. respecté wuñ Sénégalais yi am na yoo xam am na yoo xam di ko di ko prôné ci am réew sax. Ah, day wane xeeb gi nga xeeb sa waa askan maam. doy na waaw wallaahi wal azim. dëkk bu doon Dakar amul benn espace bu xale yi mën a mën mu def basket. amuñu stade yu baax. amuñu terrain fépp fu ay booy football terrain di fa tàggatu benn espace benn benn promoteur ñëw ni da koy tabax benn immeuble fan la koy jëlee maintenant xale yi ñu tëj leen ba nga xam ni dañu ne bu wax ñoom ñëpp ci géej gi. ñenn ñi dee ci immigration clandestine ñenn ñi dem deewi léegi bu ñu rayee jeunes yi waroon takk ci toll ci takk jabar muy diggante trente ba quarante ans <laughs> léegi ñu war a toll ñu war ci am diplôme vingt ba trente ans ñu rey leen ci géej gi ah. eh après est ce que am population boo xam ay ndaw la ñuy doon mën a tabax avenir waa gëm sa bopp nag jaakaar naa ne instant bi ñu nañu waxal ah, loolu de seen discours wax loolu ñëwaguñu ba léegi. <laughs> dee ma wax kay man ah ma nuyu Lamine Awo. seen discours yi dafa xale lool eh, wax li ñoo askan wi. franchement soog laa gëm. waa ci tànk ñoom jàppandeeku du ñàkk nañ ci ndax ñoom parce que annoncé woon naa ko depuis le début depuis Sénégal yi ñu ngi toog leen déglu di leen seetaan tamit ah boo xefee ngoon lañ jëm de <laughs> ay kon El Hadj jaajëf. jaajëf maam jaajëf maam. vraiment ndeysaan kon. Euh, juróom-ñeent. benn semaine benn semaine. li dee ci ay booy. jigéen na de vingt personnes. ci kaw ci géej gi. li dee ci kaw tali bi ëpp na vingt personnes benn semaine. c'est-à-dire que sénégalais yi di dee ci façon boo xam kenn xamul lan la ci géej gi ak ci kaw tali bi. et amul benn motuwaay bu ñu jël. fépp ay bàmmeel pour xeex ak loolu. lu dul jël xaalis di ko def ci ay mbumbaayu politique. ay gàttandu ay wéli tampi. yooyu du yooyu du Sénégal moo tax ñun ñun journalistes aussi am nañ ci part de responsabilité. dañuy mm. dénoncer li doxul. nañuy wax ceeb bu yokk bi nañuy wax meew mu yokk mi nañuy wax nen bu yokk bi maam nen dafa yokk nen yokk na de bu ñu la jaayee léegi duñ si def poobar sax. non c'est dommage. <laughs> fee laa dem. yàlla yàlla yërëm si week-end bi les Amaryllis hôtel mais dem ñu naan nen sax dafa yokk. lépp yokk nen sax dafa yokk waaw hôtel les Amaryllis sal yi. Ah <laughs> waaw jaajëf waaw dama ne njàmbaas ba bàyyi ma njàmbaas. aja merci loolu door en direct. <laughs> waaw booy jaajëf ba mu euh, euh, le député du peuple a ah. Adama incha allah yéet sax daa yokk yéet. wallaahi wala yéet xam nga dafa yokk. parce que léegi comme suñu waay dañ koy jënd di ko di ko di ko exporté. Hmm. même Sénégal yi doon yéet Sénégal yi doon. baana baana yéet sax keccax sax yokk na. nanguutuñu leen a jaay yéet. keccax sax yokk keccax kenn da ko gisati. keccax keccax keccax ligsu la ah. wallahi lépp yokk ma lépp yokk ndeysaan jaajëf réew de métti yaram yaram ak màggat la foo ca laal day métti ñu jàll si pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen i kaay xëy fësal lay doon